ni oxaatiku nasaara tura fi ardihim li maliki muddara ni oxaatiku nasaara asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibi yi gannaaw bu nu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla borom bi tabaaraka wa taala yal na yàlla yàggal lool Cheikh Sidil Muxtaar te may ku wér ak mboolem njabootu Serigne Touba gi xam ngeen ne at bu nekk dafa am ngan gu mag goo xam ne Serigne Mame Mor da koy def fii ci Paris di gane si bokki taalibe yi muy loo xam ne wuy juróom mu tedd wa Cheikh Mouhamadou Mourtada yal na yàlla yokk ay leeram moo ko daan def bi mu demee ba ay jëmmi jamono sun borom yéegi ko ca rafixul ahla mu bàyyee ko taawam bi léegi nag mooy bëgg ñëw ñu ko yëgal mbooleem adduna bi góor ak jigéen mag ak ndaw murit tiijaan xaadir baylay ñaseen cere ba fu fi ab jullit nekk ba ci waa kër seex seex Omar Foutiyou Tall bàyyiwunu kenn ñu ngi woo ñëpp bëgg ñëpp ñëw bokk ak noonu bis bii bokk ak noonu mii. ma di leen fàttali ne na ngeen na ngeen ngeen takku gën a àndandoowaat ñëpp ñëw ànd ak ci liggéey bi ànd ak nun ca mars ba xam ngeen ni ñu ngi départ gare de l'Est war a dox ànd ak ku baax ki ak kilifa yi bàgg place de la république bis boobu nag mi ngi tombeek le 18 octobre kon na ko ñëpp jàpp ngeen xamee noonu léegi du ma wéy di guddal di dem waaye daal maa ngi leen di xamal ne ah Amérique marsoon nañu Italie marsoon nañu Espagne mars nañ waaye jàpp nañu ne marsu Paris bii nag mooy marché bi nga xam ne moom mooy bi gën a ñor kon du ma wii di guddal damay daal di jox kàddu gi nag sunu imaam ah Serigne Bousso bi Bousso moo àgg moo àgg léegi yéen liggéey bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. noo ngi nii mbokki taalibe yi fi teew yëpp ak ñi ñuy dégg fu ñu mën a nekk ci àdduna bi. di jiite ci nuyoo bi ak ci siyaar bi Cheikh Sidi El Mokhtar mi nga xam ne mooy kilifa képp kuy tuddoo murit di ko ñaanal yàlla wér ak jàmm ak mboolem taalibe yi ak mboolem julli yi di delluwaat di fàttali rek li mbokk mi doon wax sëñ Abdou Ndiaye ne bis bu mag ba bu ñu jublu si moom lañ leen di fàttali bis bi nag li ma ci wax mooy rek ne dañ ko def nañ ko daan defee muy danañ fi jàng ay dañ fi wàcc kaamil moom lañuy ñuy jiital waaye it ndaw yi yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi doomi mbokki taali bi mbokki julli yi liñ doon jàng ci at mi yëpp doon ko def ci ndigal lii sëñ Mourtala joxe woon danañ ci wane seenub seenub liggéey kon daal ñoo ngi ci woo mbokki jullit yépp di ci woo mboolem kilifay diini yi ak fu ñu mën a nekk ñu ànd kook ñun te xam ne bisu diine la bisu Serigne Touba la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi rawatina ci sunu bokki taalibe yi nu bokk yaakaar Cheikh Ahmadul Xaadim Xaadimu Mustafa maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci turi mboolee mburi bu nekk France te di leen xamal ni bis bii nga xam ne moom la ñuy waajal lay bis bu nu ñor di bis bu nu fonk moom lañ leen di moom lañ leen di fas fàttali tey ñaan nag pas-pas bii nu ci am ak fulla jii nu ci am ak ñor gii mu nu ci ñor képp ku dégg bande annonce bi na ko na jàppe ni bande annonce bii kat aw carte de carte carte invitation la boo xam ne daa jóge ci sunu jëmm yi jëm ci jëmmam ja bu ko defee bu bis baa mu mën caa ñëw teew ca jàpp ca nam ca daan jàppee lu ko ca war mu taxawal mu taxaw ca def ko ndax lu mu ca def lislaam la koy defal ndax sëñ waa nekk na fi ba jóge fi waxul dara ci ab tariixa waxul dara ci murit waaye moom lislaam moo ko fi indi woon lislaam ko ñoroon ci lislaam la doon dox ak a wax kon nag bu yàlla dogalee mu am fi bis boo xam ne dañu fi dañ ci fàttaliku nag bis bisub lislaamam boobu di ko ci santale yàlla ca ndam li moo aman ci ñi nga xam ne ñoo ko jàppan kon nag ndam loolu képp kulub julit am nga ci cër boo xam ne saw yoon a nga ci war nga cee ñëw jàpp ci ndax bu suñ bamba amee ndam lislaam bépp am ndam. asalaamaaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu nuyub jullit ak mbokkum ak nuyub taalibe ak mbokkum taalibeem di nuyu mbokki taalibe yépp di soññi jëwriñ yi may bëgg a tudd mooy Papa Gaye ak Fallou Diop ak Lamp Fall ci dix-huitième Ngagne Ndiaye ca Nancy Cheikh Baara Diop Sandisi Cheikh Batoli Ndiaye Lille Balla Magat Moulisson Balla Sow Clermont Ferraille Mbaye Sill ak Mbaye Diop ak Baara Ndiaye Bissasoo sëriñ Samba Ross Bordel mooy Seynou Dieng Balfour Moustapha Seck Sandisi ca Sandisi Lamp Ndiaye foyer Sifran Omar Dione foyer Olni Sidi Ndiaye ak Talla ca diisoo jëwriñ yi la soññi pour ñu fàttali taalibe yi addiye yi ak siyaar bi lépp jëm ci ngan gi. ginnaaw ba ñu tàmbalee nuyu Serigne Cheikh Sidil maxtar ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér ak Serigne Cheikh Jëmb Fall ak mbooleem kilifa yi nga xamante ne ñooy dëgëral lislaam bi yëpp ca Sénégal ak fu nu mën a ne ñu ngi yëkkati ay kàddu ci kanamu suñu kilifa yi comme ni ngeen koy gisee man nag samay kàddu fi mu jëm mooy ci ndaw ñi bu ngeen gisee ñoom ñii wër ñu ñoom ñëpp wax dëgg yàlla seeni at sori na lool te ñoom ba tey ñi ngi takk seen i laxasaay jàpp ci liggéeyub sëñ bi kon nag ñun ñi nga xamante ni ñoo gën a féete ndaw nañu jàpp ni liggéey bii nuy liggéeyal Serigne Touba te Serigne Mouhamadou Mourtada daan ko taxawee ba tey Serigne Mamor di ko taxawee yàlla ko suñ borom gën a dëgëral nañoo xam ni tey jii liggéey bi lépp lépp lépp ñoom tekkiwuñ seen laxasaay waaye ñun nañ jàpp ni lépp ñun la war bu ko defee na ko sëriñ Abdul Xuddoos Mbàkke daan waxee rek naan bu liggéeyub sëñ tubaa jógee ñeen ci taalibe yi ni ah gaa yi kat dem nañ gaa yi kat dinañ ko def waaye gaa yi képp ku ci def rek sa bopp nga ko defal kon nag nañu xam ni liggéey liggéeyub sëriñ Tuubaa mi ngi nii nañ ci ñëw nañ ci jàpp ci sas yi ak ci lépp rek kon nag foofu rek lay yemale sama kàddu di gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf. Par la grâce de Dieu subhanahu wa taala de son de Cheikh Al Khadim Seigne Bamba Rassoul, le collectif des Mourides de France, par, euh, euh, comme à l'accoutumée, invite tous les musulmans, particulièrement les frères et sœurs talibi mourides, à venir nombreux assister à la visite de Seigne Mamour Mbacké du 15 octobre jusqu'au 19 octobre 2014. L'ensemble des frères et sœurs talibés mourides et musulmans sont invités à participer à la visite qui sera marqué par la grande marche qui se déroulera le 18 octobre de la gare de l'Est jusqu'à la place de la République. Cette fête aussi de remercier les autorités sénégalaises présentes en France, en l'occurrence l'ambassadeur Paul Badji et son Excellence le consul Amadou Diallo, sans compter notre tante et mère Sokhna Mbacké Seigne Fallou, Et sans oublier aussi la mairie de Aulnay-sous-Bois qui nous fait toutes les facilités pour que cette fête se passe dans d'excellentes conditions et la préfecture de Paris et de, de la Seine-Saint-Denis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di siyaare di jiite siyaare bi ak nuyoo bi Cheikh Seydil Mokhtar am di tariqati Mouridiya di siyaare Cheikh Jëmb Fall xalifatu Baye Fall di ñaan suñu yàggal leen fi lool te wéral leen euh, di woo ci liggéey bi nag suñ mbokki daayira fédération nationale bi nekk ci réew mi xam ne liggéey bi ñoo ko bokk di ñaan ñu teew ca li leen ci war ñu def ko ci bu loolu weesoo ñu ngi woo daayira moom Hadj Mohamed Lamine Diaby ñoom ñi nga xam ne ñoom tamit lu ñu bokk lu ñu ànd yëpp ñoo ko daan bokk di liggéey ñu ngi ci woo ñëpp bu kenn manqué na ko ñëpp teewe si ñu ngi jox kàddu gi soxna Fatou Thiam mi nga xam ne mu jiite daayira Maam Jaara moo ñu àndal ñoom itam ñu wax ni ñu programme ci bis bi. awuzu billahi mina shaytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi gannaaw ba ñu sante yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi sant suñuy waajur di sant sëñ Touba ak waa këram yëpp di sant sëñ Sidi Mokhtar di sant Cheikh Jëmb Fall di xamle nag ni. li am tey mooy màggal giñ daan defal sëñ sëñ Murtada Mbàkke fii ci Touba Aulnay moo moo dellu siwaat ñoo ngi ciy woo nag booloo mu ñoo ngi woo daayira soxna jaara bu so tey sirul asir bu Touba Aulnay di ci woo daayira soxna maam jaara bu itali di woo waa do waa fusti di woo daayira nuuru nuuru daaree ni bu soxna baali muntaxaa di ci woo daayira tijaan yi di woo soppay nabi di ci woo Euh, jaali batu maraaxit daayira jaali batu suñu mbokk laayeen yi di woo suñu mbokk xaadir yi euh, te euh, Ami Fall jiite ko képp kuy ñëw nag ñaan nañ la na nga muuru te jàpp ci liggéey bi liggéey bu am solo la ku ci liggéey yàlla dina la defal li nga bëgg ci kattanu yàlla baax yonentam bu tedd bi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. li ñuy woote nag moom lañ daan woote mooy marche bi ñuy def chaque année di doxub lislaam di ndamul murit moo tax nag ñu ngi ciy woo mbokk mboolum jullit di ñaan sunu mbokku jigéen ñi ñu teel a ñëw ndax kaar yi fii lay déparé 14h ñu yegg Gadales Gadales la ñuy déparé fa la ñuy doxee ba république kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp di ci woo bépp jullit di ci woo bépp bépp taalibe Serigne Touba di ci woo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah muhammadu rasulillahi salaahu salaam ñoo ngi ñaan nga ñëw ñoo ànd dox doxub lislaam bi am ci ngërëmu yàlla tubee Serigne Touba. es bi nag ñu ngi ciy woo ndeyu daara maam jaara yëpp. ñu mobiliser wu ñëw ci liggéey bi ndey daaro jaalibatu maraaxi bi ak waa Fosti ñëpp ñu ñëw ci liggéey bi mi ngi commencé le disset waañ wi woon nañ ci ñëpp képp kuy soxna ñëw ñëw ci waañ bi jàppale na ci waañ wi ci ngan gi waaye le 18 nag ci la nag bés ba ci la bésu marche bi ci bu ñu jógee ca marche bi dañuy dem nag ca salle ba. nekk nag ca saal ba jëmale ko nag ba fajar di ñaan yàlla ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahim génn ci alhamdulilah rabil aalamiina yàlla na nu yàlla jàppale ci barke sëñ Bamba xaadimu rasul suñu sëriñ.